رتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وما بكم من نعمة فمن الله mbokk yi dellu siwaat nañ ci seen jotaay wa rattilil qur'ana tartila di jotaay bi ñuy a jàngate lenn ci ay téere yooyu dafa jàngale nan la ñuy jànge alquran ju wér ju jub ju dëpp ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jote woon ci jibril mu jële woon ko ci boromam subhanahu wa taala sunu jotaay bi wees lay laytaayoon nañ téere bi ñu bëgg a dal di al muqaddima fi ma ala qari alquran an yalama lay gi giñ ko defaloon nag mooy jéem a xam aslëf ci dunduk ki bind téere bi الشيخ محمد بن الجزري رحمه الله لانجا تنكون ياكار نانيا دوينا كون تاي داني دور تيري بي تا دور تي لايتاي غيغا خامني موم لا شيخ بي لايتايل تيري بي مقدمه الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يقول الناظم رحمه الله يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي شيخ محمد بن الجزر رحمه الله نون التي جيت ربي لأن يقول راجي عفو رب سامعي يقول من وخ راجي عفو رب كي خمني مو ياكار نجلوك برام بيغا خمنتني سبحانه وتعالى سامعي مو اجي دغ لب دغوك برام سبحانه وتعالى امول فرونتير دغوك نيت دا ام فرونتير ndax léeg-léeg barab bi mu nekk wala barab ba muy dégg la muy dégg daa am lu ko jokkaleek moom fa la yem loolu yi muy dégg tamit kon jëmmi li muy dégg dafa am frontière waaye lii dégg ci moom tamit di nopp ak mën a déggam daa am fu mu yem nda la muy dégg am na fu muy toll ci son day mujj sax tafi noppam balaa nopp yi bën loolu day wan ni kon السميع كيغا خامتيني موي ادي ديغ جيغا خامني اك ديغم امول فرونتير تي لي موي ديغ امول فرونتير تي لي موي ديغي موي بروم سبحانه وتعالى ومن يقول راجي عفو رب سامعي محمد فاعل يقول غوك كون موي كي واخ تياكار نجيغلوك بروم سبحانه وتعالى محمد بن الجزري كون اوترو مانغوك بريزانتي نا بوبام واخنا اوترام تي لاي تايلي ash-Shafi'i dolli tamit ci présentation bi ba junjaale madhabam ci wàllu fiqh borom xam-xam bu mag la woon ci wàllu gu bari junjoon nañ ko ci jotaay bii wees ci lay taay gi waaye tamit bu dee ci wàllu al fiqhul islami borom xam-xam la woon ci fiqhu madhabi ash-Shafi'i waaye it ci la tënku woon moo tax mu ne Muhammad ibn al-Jazari ash-Shafi'i الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد واله وصحبه ومقرئ القران مع محبه alhamdulillahi wax jaa ngi noonu nag kon dañu maa ngi wax moom mi wax présenté boppam wax ji nag moo tàmbalee foofu mi ngi tàmbalee ci sant borom bi subhanahu wa taala ba mu ca yeggale ci sant borom bi mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala nabiyihi yàlla de dolli xéewal te jéggal ab yonantam sallallahu alayhi wa sallam wa ki nga xam ni moom la yàlla tànn ci biir jaamam yi yónni ko ci nit ñeg jinne yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo tànn ci tànnin yu baree baree bari tànn ko ci biir nit ñi tànn ko ci biir arab yi tànn ko ci biir quraish tànn ko ci biir banu hashim tànn ko tamit ndax ay jikko daal di koy yónni ci nit ñi inna allah astafaak eh, astafirullah eh, am na ay aaye wala ay texte ci ay xadis yu junj ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnee fukk borom bi la di junj fii wa mustafaahu muhammadin mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ñaan googi ma ko ñaanal maa ngi koy ñaanalaale ak njabootam alu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy waa këram ak mbokki deretam waa këram mooy ak njabootu boppam soxna yaak doom ya ak mbokki deretam wa sahbihi ak ay àndandoom mooy saxaaba yi ñi ñu tudda saxaaba saxaaba nag saxaabi yi mooy koo xam ni daje nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko dee ngëmam goog yi daje nag bi sallallahu alayhi wa gëm ko dee ci ngëmam goog gi kon ko dajewul ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na charte bu wàññeeku ci yow pour nga nekk saxaaba ñi dajeeg moom te gëmuñu ko benen charte amna charte bu wàññeeku ñoom it duñu sahaba manam ku faru Quraysh duñu ay saxaaba donte man naa ñom ak yonent bi ñoo dekkon am ñoo xam sax jige won nañ ko kër lool jige ko ci walu mbokk waye duñu ay sahaba ndax gëmuñu won yonent bi sallallahu alaihi wa sallam ñetteel bi moy wa mata ala imanihi kon ku jeng mom gëm ko bi fi yonent bi jige mu murtad genn ci diine ko ki day genn ci sahaba yi kon buñu as sahaba wala wa sahbihi ñi ñetti charte yi daje ci ñoom ñoom la ci jublu mooy sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ña nga xam ni alquran yaxal na ni yàlla gërëm na leen te it ñoom lépp lu yàlla dogal ci ñoom bég nañ ci radiyallahu anhum wa radu anhu loolu li ko jiitu mooy wasabiquna al awwaluuna min almuhajirina wal ansar ñooñ ñooy sahaaba yi wa muqri il qur'ani ma muhibbihi ñaan gi ma ñaanal yonent bi ñaanal ko waa këram ñaanal ko ay saxaabaam nee na mi ngi koy ñaanalaale jàngale katub alquran bi ki nga xam ni jàng na alquran ba man ko ba itqaan ko ba waa gi seedeel ko ko mu continuer di ko jàngale kooku mooy muqri nee na mi ngi koy ñaanal moom it yàlla defal ko mucc ak xéewal ma muhibbihi di ñaanalaale loolu yi tamit mboolem ku bëgg alquran wala ku bëgg jàngal katub alquran ñaanam gi daanaka jullit ñëpp dañ cee dugg ndax yonent bi la ñaanal ak waa ak saxaaba yi ak jàngalekat alquran yeeg ñi leen bëgg benn jullit génnul ci biir juróom yi yonent bi moom kenn la waa këram ñenn la saxaaba ya ñenn lañ jàngale alquran yi ñenn lañ waaye ñi bëgg alquran moom te bëgg ña koy jàngale moom ñëpp la war a doon jullit ñëpp moo tax ñaanam gi dafa daj dafa làmboo mangook ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent ñaan ñaan gu lam gi ñëw nag ci présenté ñu téere bii nga xamante nii moo nekk suñ kanam moom uh, mu allif bi jëm boppam ki ko bind présenté na ko ci laytaay gi présenté aw turam waaye présenté tamit lan la jublu ci téere bi maanaam lan la bëgg ki ko jàng bu paree lan la ci lan la bëgg mu amee ko ci ci man ci wàllu taju ak yenn bunt yum junj mu ni wa baadu ginnaaw sant yàlla géeg julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan yooyu jiitu inna haadihi muqaddima lii ak laytaay la فيما على قارئه أن يعلمه téere bi ab laytaay la fiima ca la nga xam ni maanaam atte ya nga xam ni ala qaari'ihi war na jàng katub alquran bi an yaalamahu mu xam ko foofii la tënk turu téere bi kon téere bi mi ngi tudd almuqaddima fiima ala qaari'i alqur'ani an yaalama almuqaddima فيما على قارئ القرآن أن يعلمه نون تيري بتود موي ليتاي غو خامني دا تي جانغالي ييغا خامني جانغ كتب القرآن بي ورنا كو خام لوتاخ مو وخني ورنا كو خام موني اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات وما الذي ولا ليلفظوا بافصح اللغات ne ndax daa war ci jàngkat alquran yi jàngalekat yi moom waxuñu leen bu ne daa war ci jàngkat alquran yi jàngalekat yi waxi nopp daa war ci ñoom ñu mën tajwid xam ko mën a jàng alquran ju set jàngalekat yi waxi nopp ñoom ñuy jàngale mu ne id waajibu ndax de dafa war alayhimu ci ñoom jàngkat alquran yi ak jàngalekat yi muhattamun qabla shuruuci awalan an yaalamu daa war ci ñoom war gu fés ni balaa ñoo door ci njàngum alquran waxuma nag di ko jàngale an yaalamu ñu xam maxaarij al xuruufi yii nga xam ni ci la yàlla composé alquran ci la ko tëgge ci la ko rabbe di alxuruuf alarabiya alxuruuf alhijaiya alarabiya di ñaar fukki xaraf ak juróom-ñett bi wax ni alquran ji man ma ko wàcce ci làmmañu arab nazala bihi ruuxu alamin ala qalbika li takuna min almundirin bi lisaanin arabiyin mubin arab yooyu nga xam ni ñaar fukk ak juróom la yàlla ràbb ci alquranul karim borom téere bi nee na balaa nit kee jéema door njàngum alquran war naa xam xaraf yooyu fu nuy génne fan la ñuy génne ba bu ko bëggee génne génne ji ko fa mu war a génn ndax mu jub set leer wér kon war nañoo xam bala ñoo door ci njàngum alquran an maxaarij al xuruuf yi génn waayu xaraf yi wasifaati ak melokaani xaraf yi ndax xaraf yi bu ñu génnee fa ñu war a génne daa am nuñ fay génnee daa am nuñ fay jugee pour génn si nañu fay jógee loolu la ñuy tudde sifaatul xuruuf melokaanu xaraf yi dafa am nuñ fa mel bu ñuy génn nee na loolu itamit war na koo xam ndax xam li ñuy tuddee maxaarijul xuruuf day tax alquran ji set waaye sifaatul xuruuf ak yi ci des ci axkaam yi day tax alquran ji wér kon war na koo xam xam googu muy xam ñaar yooyu ak ya ca ya ca topp موكاي ماي ليلفظو بافصح اللغات غير ني مانا جانغ القران جو سيت جو وير جو لير محرر التجويد من تجويد بو باخ نانا جانكات القران لو جيتو ني جانغ ورنا ньо خام مخارج الحروف ورنا ньо خام صفات الحروف واي ورنا ньо من تجويد لب لو ات اجو تي احكام التجويد تي جانغ مي تي مدياك مانغوك تفخيمك ترقيق أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام الميم الساكنة والت... أحكام الميم الساكنة أحكام الميم والنون المشددتين مانغوك آه، لنيتو تود اللامات السواكن يوب ورنكو خم منكو محرر التجويد من تجويد بباخ والمواقف خمال تمت فن لنيتخو أغنس فيتخوي أكفن لنيتكتي bunt bu mag la loolu bu ñuy tudde al waqf wal ibtida buntub taxaw dinañ ci agsi incha allah waaye dafa am ñeenti xaaj dafa am lu ñu tudde waqf ixtibaar yi taxaw goo xamante ni cheikh bi lay jàngal moo la taxawloo ci baat ndax ixtibaar la ba xam-xam nga noo fay taxawee am lu ñu tudde waqf intidaar yi kuy jamcu qiraat moo koy def am lu ñuy tudde waqf itiraar yi mooy taxaw goo xam ne mënoo ci dara sa fond jeex nga taxaw ci misaal am lu ñu tuddee wax fa ixtiyaar yi mooy taxaw goo xam ne yaa ko taamu gu mujj gii ma mujjee wax moom it séddale ko waat ñeent ci biiram waqfu ka taam waqfu kaafi waqfu xasan ak waqfu qabiix moom la ñuy faral di dajal ci téere ñu leen di tas dina ñëw ci téere bi téere bi buntal na ko incha allah eh, jërte yàkkamti waaye xam ko ba xam fan moo mat a taxaw ak fan moo mat a taxaw fan mooy fi nga xam ne ba taxawee maanaa mat ak fan mooy foo xam ne du matal maana fan mooy foo xam ne boo fa taxawee yàq maana yooyu yëpp daa mat a ci jàngkatu alquran bi nee na waaye tamit ndax du fu ne la nuy nga yëkkatee foo xamante da nga yàq maana carrément am baat yoo xam ne tamit dafa am qaida bu dabtu seen nan nan la ñuy tàmbalee ci ñoom nan la ñuy ci ñoom yooyu yëpp daa mat a xam nee na wa man ladi rusima fi lmasaaxifi nee na war naa xamaal li ñuy tudde rasm ar rasm al uthmaani mooy mbindinu alquran mi nga xam ne noonu la ko saxaaba yi binde woon seydna uthman binde ko noonu sottee ko noonu ci kaamil yi mu tasoon daa bokk ci arkaanul quraanil karim mooy muwafaqatu ar rasm al uthmaani nee na war na cee xam lenn tamit rawatina li nga xam ni day taasir ci njàng mi ndax ci wàllu rasm da ci am loo xam ni day jeexintal ci njàng mi rawatina ci buntub taxaw ak yëkkati mu joxe ci misaal min kulli maqtuin wa mawsulin biha li ñuy tudd al maqtuu wal mawsul ci misaal fii ma léeg-léeg nga ñëw ci alquran ci place fekk mu nekk maqtuu ñu bind fii bind ma seen diggante am espace taqaloo ñu ñoom ñaaram boobaa maqtuu la ci misaal léeg-léeg nga fekk ko ci yeneen barab ñu bind ko fii maa nga xam ni yaa gi xëcc faa gi dafay taqaloog miim gi mu nekk mawsuul loolu la jub ci al maqsuu wal mawsuul baat yu bare ko am ci alquran am na yum ci buntal dinañ ko gis insha allah boobaa day def effet ci njàng mi ndax boo demoon bay taxawit ki doon jàng ba fomam jeex ba agsi ci baat mel noonu li ci nekk maqsuu sañ naa taxaw ci fii ji buy doore ci ginnaaw doy waat ñëw waaye li ci nekk mawsuul fii maa ji benn baat lay doon boo xamante ni da koy liirandoo kadalik wataa'i untha lam takun tuktab biha nee na mu xamaale tamit taawu untha yaani taawu tanis gi nga xam ne binde wuñ ko taa marbuuta binde wuñ ko comme ni ñu binde haa ndaw haa saxiir taa googu tamit maanaam xam place yi nga xam ne ci alquran dañ faa tijji ak ya nga xam ne dañ faa tëj ta yu mat a am solo la yu am solo la yu mat a xam la ndax moom it day taatiir ci njàng mi mën naa ci jox misaal rek ci baatu ni'ma léeg-léeg nga dem fekk fuñ ko tëj boo cay taxaw ni'mat ngay taxawee ci taax léeg nga dem fekk fuñ ko tëj boo cay taxaw ni'ma ngay taxawee bilha gis nga ni kon bindinu tagi, gi jeexintal na ci njàng mi ci jamonoy taxaw moo tax mu ni yooyu nga xam ni day jeexintal ci njàng mi joxe ji ñaari misaal al maqtuu wal ak taawu taaniis barab yi koy tijjee ak léeg-léeg barab yi koy tëjee nee na jàngkatu alquran bi war na koo xam ndax day tax am njàngam wér am njàngam set lii mooy lay taayu téere bi mbokk yi incha allah dañuy taxaw ni foofu kon ba sunu jotaay bii ñu dugg nag ci baabu maxaarijul xuruuf